salaamaaleykum père. aleykum salaam. tur bi naka la. Euh, Mbaye Niass Mbengue Mbaye Niass Mbengue Yoff waaw. yaa représenté leen Yoff. xam nga yàlla dafa def tey suñu doom euh, di caatu Yoff yàlla dafa def muy organiser euh, open press et comme ñun ñooy seen i kilifa seen i wéyu et yàlla def aussi ñun ñu ne fray Yoff El Hadji Baytir Ndoye di président équipe de lutte bu Yoff. di membre si commité directeur bu Freyov te Freyov boo ko déggee mooy ña nga xamante ne euh, mooy ndawi dëkk bi ñoom la dénk dëkk bi euh, ñooy lu xew ñoo war a teew ñoo war a def lu baax si dëkk bi ñoo war a organiser dëkk bi vraiment ñooy ndaw yi daal lépp lu ñuy def lu baax yëpp ñoo koy organiser. yàlla def comme ñu ñëw fi nag ci turu Freyov benn ñaareel boo si ma ñaar fi en tant que xaritu El Hadji Baytu Ndoy di président écuderie bu Yoff vraiment mu yore équipe yi def liggéey bu am solo vraiment liggéey bu mu ci ayib liggéey bu siluissé vraiment mu ooñu ñun ñëpp tey ñu daje fi ma àndax moom ak imam El Hadji Abdou Karim Bey aussi moom aussi mu yor patrimoine yoof bi yëpp yëpp yëpp si frais yoof loolu moo waral suñu teewaay yi voilà jërëjëf. xam nga caatu yoof ku muy bëre. waaw waaw caatu yoof euh, bulldozer la war a bëreel bulldozer waaw mais nag. Euh, ay kilifa vraiment di xale bu ñu sant gërëm ko parce que di xale bu baax daal boo xamante ne vraiment man gis naa combat bi yëpp tout récemment gis naa combat bi yëpp mais nag bëri moom mën na ko trop trop trop mais nag bër nag da ngay teey boo teeyee rek incha allahu rabbi moom loo bëgg rek mën ko si am bañ a profité sa bëree bañ a yàkkamti boobu te adversaire nag ak nu mu mën a da koy respecté parce que adversaire pour nga daan ko aussi il faut nga respecté parce que tant que yaa ngi jël sa adversaire te nangoo ko respecté aussi vraiment dina xaw a difficile na respecté adversaire am boo ñëw avec du sérieux comme entraîné na vraiment mu lu ñu ñaan ak yàlla may ko ndam yàlla may ko ndam comme nu mu ko daan may ay ndam ndam yu sedd guy guy guy guy guy ni grâce parce que moom bu daanee rek yoo fa daan bu daanee rek yoo fa daan kon nag euh, dañuy ñaan yoo fa daan te moom mu daan it waaw léegi nag comme man dama am benn signature boo xamante ne en général dama koy wax fii si Yoff di ko dégg may wax ne jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waaw man euh, Mbaye Guèye Mbengue la eh, maa si doon dolli loogu wax nag jërë ngeen jëf waa Wassare télévision jërëjëf. saa nga combat Balla Gaye Boy Niang waaw combat Balla Gaye Boy seetaan naa ko mais nag xam nga bëre noonu la parce que euh, euh, mu Tafa Moustapha Gueye. dëndam gis nga bu muy dem fin carrière dañ ko jox Lac de Guiers Lac daan ko ñu jox ko Balla Gaye Balla Gaye daan ko. gis nga Yékini aussi bu nee fin de carrière Balla fa mu tollu woon et eh, ñëw daan ko bon actuellement booy Niang dafa toll si étape boobu. bien vrai que seetaan naa keroog bëreem mboox euh, Tafatine bon xam nga Tafatine aussi dafa taxaw rek jël ay gàttam topp ko ndànk ndànk ndànk ndànk yàkkamtewul dem ba avertissement yi bare après ñu yoroo foo à la dernière minute bon dafa euh, daan mais nag xam nga leçon yooyu aussi booy Niang daf koy tiré te xam na ne Balla c'est un mais Balla aussi xam nga aussi poids bi aussi. dafa joué si si bëre bi parce que moom bi mu bi mu dóoree crochet yootu poids bi yëpp dem na mu dolli beneen enchaîné booy ñaar reculé mépp mépp rek euh, Balla jël ko mais Balla ba muy jël yootu ba moo sore booy ñaar écart boo mu def Balla amatul équilibre poids bi yëpp daf koy jox booy ñaar booy ñaar bloqué ko ba mu ko bloqué damay dégg instant bu ngi bëgg a génn mais booy ñaar calpier calpier calcier bi dóor ko épaule ak ndax moom mu jaaxaan comprendre nga mais euh, xam nga poids lourd moom foo ko balancer fa la jëm moo tax poids lourd dafa war a teg gis nga Bombardier ba mu daan def teg di bëre naqaroon daan mais bañ ko joxee mu Mohamed Ndaw mu ñëw sànni ñaari coup sànni ñaari coup rek Tyson tërëf gars yi ne ko ah gaynde bul taxawati moo tax finalement si la am ay defe ay defe mais nag gisoo léegi taxawaat na taxawaat na léegi poids parce que poids lourd yenu ko c'est impossible poids lourd bu rasu kenn mënu ko yenu Lac de Guiers a ngi Lac de Guiers 2 kenn mënu ko yenu parce que poids lourd la te def da ngay këti këti ba sonn yaay génnaat xale yi nag mën nañu bëre trop trop trop trop mais nag parfois day def loo ne buñ fa tolloo moom dañu foog ne gaynde sax bu tawee seen kanam ñu daan mais bëre dafa laa tey bala bu teewoon si bëre bi moom vraiment war na si mën a génn mais nag fa mu fa mu dabe woon ay Yékini deme fa Moustapha Gueye foofu la ko boo Niang demee comprendre parce que bëre dañ ne renam ñaam bi la kenn fu mu demee la waaye nag bëre nag renam ñaam bi dina dina dem profondeur boo xamante kenn du ko mën a buddi dama rek monsieur comprendre voilà bëre nag noonu la jërëjëf jërëjëf jërëjëf dama aayul nag si bëre tellement noonu moo tax quoi. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu bàyyi la nga man maay Baytir Ndoye président écurie Yoff maay deuxième vice-président ARELS association des responsables des écoles et écuries de lutte maay deuxième vice-président chargé de la communication. macha allah alors Thiatou Yoff tey mu ñëw di organiser open press yan kàddu gi. Thiatou moo organisé dañ na Thiatou Yoff mooy Yoff yëpp ñi ma toogal ñi ñooy kilifa yoof maanaam ñun ñoo yor kàddu yoof ñëw na. fii mooy place bëre yoof deti bi caatu yoof ak bulldozer waruñu bëre ndax du yoonu lamb c'est bëre di nga xam foo xam ne boo fa tolloo da ngay bëre pour bëre rek mais bu ngeen figuré lamb ñaati ñaati kii lam ñaati komba 14 combat benn défaite kan moo ko daan ku da ko daan waaw ku ko daan Franc moo ko daan Franc moo ko daan keroog combat maa nga fa kii di caatu yoof kii di Malick Niang gisuma ku leen gën par bref yoof dëkku mbër la yoof nee naa la mën naa la limal huit mbër yoo xam ne ku ci génn doon tedd fil yoof la si mbër amul benn écurie loolu nag yéen wasaare ak DTV bi am nga ngandu paar boo xam ne yéen a ko war a joué des fois nag yéenay xalal ñi ñoot nit dina bëri ñaar ñetti komba ñeent ngeen wutal ko grand combat ñun nag bëre lébu mooy bëre yoof mooy bëre buñ la bëre lébu xëy nay xale ngeen mais mbër yu mag yi ngeen dégg yëpp yoof gi lañ dëkk. sànq combat Balla Gaye euh, Boy Niang. ma ki yem ci dama fa ne woon. man du ma tardé komba maa nga foon. noo gisee combat bi ko jàngatee noo jàngatee Balla Gaye nan la ban def. gis nga bëre daan match nul defet moo ci am mbër dana toll foo xam ne il faut nga bàyyi sa bopp ak say dirigeant am na foo xam ne boo fa toll nag ah du ma ne amoo kilifa de waaye nanga meloon bi nga nay xale day wàññi ku baax am na foo xam ne Balla Gaye Euh, lu ko Boy Niang waxoon une minute bu ñëwul ma ñëw Balla Gaye taxaw di ko xaar taxaw taxaw ñëwul mu koy song lan la doon perte combat bi dara bu daanoon Balla euh, Boy Niang lu mu koy yokk dara loo tax muy engagé na taxaw na taxaw bu taxawoon du ko yàgg ba Boy Niang engagé ko fii euh, dëkkule bu nga ñëw de bëre rek fii ay mbër rek waaw